wax ma oh my love. fekk invité ah, Premier Prime seen petit gàllé New Look 2018 mais ay la tey lan nga yëg tey. Euh, waaw am mbégte rek euh, comme ni ma ko doon waxee tout le temps xam nga man moom ah, man ak ah, xale seen petit gàllé seen une histoire c'est une c'est une longue histoire. Euh, je pense que man je connais que c'est une grande terre, donc tey jii yaa manière que c'est à chaque fois donc tey dit. nekk am honneur nekk première invité seen seen petit gàllé ci mbégte bu rëy. ku ne ku la xam te xam ne actualité bi Aïda Samb la ñuy wax tey préparé lu am solo muy suba ci Magic Land boo dañuy wax lan nga préparé gars yi. waaw alhamdulilah euh, grand théâtre moo waral lépp ñu def lu mu nekk réussite totale suba nag dañ leen di jox dañuy jox ñëpp rendez-vous xale yëpp. ñu Magic Land. def suñu ñu concert rek. Mm-hmm. comme nañ ko doon defee tout temps concert bu am am solo may ko xale yi comme xale yaay amuñu woon mënuñu woon ñëw euh, machine concert machine ak incha allah. lan la di defal yëfu xale rek. Hmm. ñu bëggee cap reetaan. mais doo introduire ci lan la bi tuuti rek ko. Oh lan la oh waaxub ma lan laa la dee. baal ma oh my love. yéen a ngi gis xale yi ak saa mooy may lool.